ñoom démissionné nañ seen premier vice président yi ñëw nañ tey toog ba ñu toog waa ligue amateur toog waa ligue professionnel toog ñëpp d' ni situation bi war nañoo toog ñun ñëpp ñu xeex pour que lii bañ a amati Sénégal. parce que problème fondamental bi du qualifié wuñ Coupe d' Sénégal éli Côte d'Ivoire éliminé dara nekku ci parce que rek gàcce mais li xew stade mooy problème bi fan la jógee violence bi nekk ci football bi mais loolu yaakaaroon naa loolu la ñuy def parce que mbir mi ci nawetaan yaa ngi koy gis man fi ma dëkk Kaffrine parce que équipe perdre na ci match dem na taali orkaaf ba ci stade Dakar fii mi kenn du mën a dox ci ligue professionnelle bi yéen journaliste gis ngeen ñaata violence moo fa am ba mu ñëw nag ba ci match bi musiba am na nga xam ne Afrique bi ak adduna bi yëpp gis ko kon ñu war cee def ay saafara mais bu ñu dajee si suñ comité bi dañoo ne d' ñi dem nañ leen remplacer parce que loolu nag suñu charte moo wax ni ki dem rek comité exécutif bi na ko remplacer def na remplacé nañ leen te ci comité exécutif boobu boobu le fukk ak ñeent yi teew nañ tey fukk ñeent teew nañ tey ñett ñu nga xam ne dañoo tukki muy ñaar ñi na nga xam ne ñu ngi Coupe d'Afrique ba ak kenn muy professeur Fallou Cissé nga xam ne mu ngi nekk Tchad kon fukk ak juróom-ñaar yëpp ñu nga xam ne démissionné wuñ tey ànd nañ ci mbir mi président ligue comme ni ma ko waxee ñëpp ñëw liñ doon yaakaar ci décision football yëpp ñu fekkee amul benn baat bu fa dem beneen su feneen yoon ne ñu benn remplacé bi d'accord nañ ci ñu tànn ay nit donc ligue professionnelle euh, pour être précis ki euh, remplace Louis Lamotte ci euh, place premier vice-président Babacar Sylla bu Linguère bu Saint-Louis Babacar Sy moo ko ram ah. intérimaire ba mhm. suñu mhm. deuxième vice-président bi ñu jël Daouda Badji bu nga xam ne mooy président ligue Ziguinchor mu assumer responsabilité mhm. yu doon jaw jang assumer yi responsabilité yi nga xam ne Ibrahima Traoré moo ko doon assumer ñu jox ko Sami Danif nga xam ne mooy président de ligue nekkoon sixième président ki nga xam ne moo ko toppoon ci commission ba ñu jox vice présidence boobu mu assumé ko jusqu'à la mu assumé loolu mais yooyu benn la ci décision yi mhm. beneen décision bi dañoo jàpp ni lu a demee ko tabaat yooyu ñu wax leen ko ñoom ñëpp ñu entraîné décision ñu jël baax na yeneen ñu ne suñu diggante ak bi dafa am incompréhension parce que ñu bëri dañoo jàpp ni ñun dañuy xeex a nguur bi xeexuñu nguur parce que nguur xejul ci kenn ba pare nag état nag ñun ñëpp a ko bokk dafa am rek ñii ñu nekk ay citoyen ñii ñu nekk ay gouvernant bu ñuy gouverner nag ñun ñëpp ñoo war a ànd te def mbir mi nag mu am délégation de pouvoir ñu téye délégation de pouvoir FIFA jox ñu ay ay ay ay parce que ñoo adhéré librement ci FIFA ñu nekk association privée ñu bokk ci FIFA FIFA jox ñu ay matukaay nañu lu ngeen di liggéey da ngeen di am autonomie autonomie ci li ngeen di def mais autonomie boobu la ñu préserver ne état euh, d'accord nañu dox ci seen ndigal déglu leen mais nag am na aussi ku ci nekk fu responsabilité am jëm mais ñu comité bi waxaat ñu ñaaxaat ñu ne wax leen ak nguur gi parce que njiitu réew mi ou bien premier ministre xëy na li leen wax bokkul méngoowul ak li nekk ci biir parce que bu ñu nee crise bi ne football bi doxul mais ala kulli àll sama waaye Sénégal ñëpp fii lañ nekkoon ñun bu ñuy ñëw bu ñuy ñëw ci fédération bi am na lu ñu fi fekk dañoo fekk ni championnat daanaka amul léegi ñun ba ci région yëpp am na championnat cadet. am na championnat national 2 am na championnat national bu régulier am na ligue professionnelle ñoo ngi football vrai am na ay problème ay joueurs yu seen salaire ay difficulté loolu mënta ñàkk parce que nag li ñu xaar aussi ci état ba depuis boobu depuis 2008 ko boo seetee tey Gabon plus de 16 milliards lañu investir ci seen football professionnel ñun ba tey état investir ci dara mais ñu jàpp ni kuy kuy kuy kuy sox bu yàggee nga dox hmm. donc loolu yëpp ñu defaraat ko ci structure yi ligue yi amul benn ligue tey benn ligue bu nekk ci Sénégal bu gën a tuutile bu gën a ti ligue bu gën a tuutile jot na ñaari millions yu jóge ci fédération sénégalaise de football te football local bi yëpp nag parce que wax ne état def na lu bëri def na lu bëri gaa ci mais ci équipe nationale A. boobu ngeen bañ. voilà tamit ñu jugé leen ci. ñu ci A bi benn ponc la ci suñu war a liggéey yeneen ñi centre développement technique bi dañoo ñëw fekk dara amu fa ñu doxalaat ko ba mois de novembre bi danañ ko inauguré Sénégal teg ñun si suñ fonds propre ñu jël jënd bis bu bees tax fekk ajuma da ngeen ko gis ñu wane ko. Ablaye yaa ngi def <laughs> yaa ngi def sa bilan waaw xaaral ma àggali yaa ngi def sa bilan te te seen réunion bi décision yi ngeen jël. bëgg bëgg naa ñu waxtaanee ko sama naataangoo yi. li may wax ni lii yëpp mhm. président de liggéey ak ñëpp seede nañ ko. ñun bu ñu ñëw fédération Augustin bu muy ñëw ñun dañu ne xam nga CNF sax ak ñoom Njaaña bu ñu ñëwee daanaka fekkuñ fa dara ñoom parce que dañoo gis kayit yëpp réel amul amul benn administration te ki doon tudd sànq moom ci biir boobu la bokkoon. Euh, ku ma doon tudd sax dama bëgguma koo tudd woon ndax <laughs> dëgg neex yàlla mais biñ ñëwee ñun. CNF dañoo ne bàyyi nañu ay vingt cinq ay vingt six millions. Hmm. te loolu en écriture la. boolewul bor yi ci nekkoon. Mm-hmm. bi ñu ñëwee tey ñun suñu dernier assemblée générale yëpp nekk fa ñu valide rapport financier yi ñu bàyyi fa 351 millions. kon ñun bu ñuy dem tey dañu ne gàcce ngaalama parce que ñun amul kenn ku naaw a xaalis dañuy naan dégg naa benn mu ne euh, fédération vache et waaye man man man man mii de su may am vache Kaffrine lay nekk mooy pël la mu sàmm jom mm-hmm. waaye lu ma ñàkkul du ko lekk. Mm-hmm. te tey bu ñu demee fédération nañ am nañ état am na ses inspecteurs. am na inspecteur d' état am financier nañu contrôlé ñun waxuñu kenn ñu contrôlé mais bu ñu contrôlé dana mbir mi leer ñu daanale fédération ba ak fan lañ fa àgg nañ daanale arbitre yi mu mën a ci arbitre yi ci commission tamit jàpp nañ Badara Mamaya Sène waaw dafa démissionné waaw démission bi tamit gis ngeen dox arbitre yi solidarisé wu ne ñoom dootuñu siffleel fédération bu Augustin Senghor jiite la ma mbir parce que Badara démissionné comme ñeneen ñu démissionné am nañ ci droit même si dama jàpp match Sénégal Côte d'Ivoire bi le 13 la on a attendu le 24 ou bien le 25 pour nekk ñu ngi démissionné boobu dañoo def 11 jours pour apprécier gravité wu affaire bi alors que ñi fa nekkoon am na ñu nga xam ne lendemain la ñu démissionné ñoom naa ko gëm mais ñoo nga xam ne ñu xaar 11 jours 12 jours après ni ñu ngi ci vacances fii ba janvier ñun amuñ compétition dafa mel ni élève bu nekk vacances rek ne maa ngi grève loolu kenn gis yéenul maanaam mais dañoo jàpp ne ñun suñu responsabilité du ñu may nag ñu toog fii ba janvier di Euh, FIFA daf ñu ne woon depuis un an et demi installé ci fédération yëpp direction générale des arbitres waaye comme que Badara sama mag la sama xarit la waaye moom dafay école bi suñu ci comité exécutif atlétique li ñu ko fal ñetti ñetti at ngi nii ñun benn yoon a woon mettre en œuvre parce que moom moo nekk président bi moo war a doxal mbir moom comme que nag moom day daw day daw day daw comité exécutif tey mu ne démissionné na kiñ fal tey si suñu comité exécutif dañ koo jox mandat ñu ne ko dañoo bëgg ci ay fan yu ñu nga war a consulter yëpp nga consulter leen ñu def appel appel d'offre ñu nga xam ni ki bëgg a nekk directeur général des arbitres ñu placé ko à la fédération wax bu ñu waxee ñu tànn ñu tànn ki ci gën pour le football sénégalais ñu def ko directeur général des nekkatul commission moom day toog fële di def lu ko ne mbir mi lépp la ñu teg ci yoon arbitre bu bu ñëwee arbitre tey nga ne Kaffrine contre Tambacounda buy ay san arbitre bi am sekam mu jaarale ko ci ay yoon nga xam ne mbir mi du amati diw mooy buur di bummi ci mbir mi. dinaa woo Badara mu tontu ndax.